أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك ومجد وشرف على المبعوث رحمة وهداية للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى واهتدى بهديه إلى يوم الدين asxaab almaali ixwaani axawaati fi llaahi billah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa yi ci ndigal lu jógee ci sëriñ Abdul Aziz Al Amin ci la ñuy yëkkatee kàddu di muslu ci bakkan ak seytaane yàlla ci yàlla boole musal di ubbee wax ji rek ci turu borom bu tedd bi te moo di bismillaahi rahmaani rahim di sant yàlla bu baax a baax ndax ni waaw mu sotti day ànd ak coobare yàlla moo tax seen góor ga daana wax ni insha aman ma shaahu yakunu zahabukum gadan yakunu bu soobee ki nga ne lu ko soob mu def ko bu ëllëgee di dem fi mu bëgg ngeen dem fa insha kon lépp day aju ci coobare borom bi subhanahu wa ñu sant ko bu baax nag bi mu ñu ko sottalee ndax ni déet ni waaw moo tane ni waaw ni déet yàlla mi ñu dimbale nag ba wax ci sotti yàlla ñu yàlla sàmmal boppam ba ñu tegu ci yoon di yëkkati ginnaaw julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama di yëkkati kàddu nuyoo comme ni ma ko waxee ci turu sama kilifa sama sëriñ bi sama lépp di Seema Alhaji Abdul Aziz Al Amin adanahu Allahu wa amada fi xayaatihi yàlla na ko fi yàlla bàyyi te yokk fanam ba ca kanam a kanam di yëkkati kàddu baati assalaamu aleykum wa di ko jëmale ci ñépp góor jigéen ñépp ñu ngi leen di nuyu ci tëru Abdul Aziz nuyoo lislaam di wax nag marhaban ci seen kër ndax ëtt bi ëttu yàlla la du ëttu Cheikh Al Hadji Malick kon doonte ne moom la ko yàlla sàmm na moo tax sunu doom ji bi mu waxee ne ñi yor diine ji ak ñi diine ji yor ñaari sens moom nee na ñi yor diine ji ñépp a ngi fi wala ñi yor ñi diine ji yor bu ci ëpp solo ah yor diine moo gën diine yor na Ousmane seetul wax ñi yor diine ji wala ñi diine ji yor ñi diine ji ci lay amee sens ci li ñu jëm xam ndax dégg ngeen wala déet sama doom moo ni ñi yor diine ji ñu ngi ci mbooloo mi ma ne ñi yor diine ji wala ñi diine ji yor summa jaalnaaka ala shariati min al amri fattabiaha waaye wala tattabi ahwa alladina laa yaalamun kon yonent bi moo yoroon alquran wala alquran a ko yoroon kon seen waxtaan yi du nar a neex comme que da ngeen xaw a ragal tuuti ah. summa jaalnaaka ala shariati min al fat wala tattabi ahwa alladina laa yaalamuun yàlla nee na yonent bi maa teg ci sa loxo waaye toppal sharia bul topp ñi nga xam ni seen bànneex lañu ñu topp kon sharia moo ñuy moo ñuy guidé est-ce mu ngi fi ci waxtaan bi waxtaan yooyu est-ce mu ngi fi yow charia est-ce que mu ngi fi tabaarakallahu kon ñun ñépp yàlla ñu yàlla boole jàppale ba lii ñuy waxtaanee kenn ku nekk déglu yàlla bañ a déglu kiy wax boo déglu kiy wax rek mën nga caa topp te fekk déggoo yàlla moo tax alladina yastamiuuna alqawla fa yattabiuuna ahsanahu ñiy déglu wax ba wax ja sotti ñu dem seet seet la ca gën ñu topp kon tey ñun ñëpp yàlla moo ñu bind indi charia teg ci suñu kanam ñun ñëpp ñu war a ommatu ci ginnaaw bañ koo seen papa Abdoul Aziz dama indi benn téere jox ko ko mu ni ma liiral may liir di liir ba téere bi àgg mu ne waaw baax na dégg naa la demal ba ay fan ma dem ay fan ma ñëw mu ne ma lu tax waa ji bind téere bi ban sabab ban cause moo tax waa ji yëkkati xalima di bind livre bu toll nii bay wax lii mu wax eh xamuma ko mu ne ma kon nag mënoo dégg téere bi ndax kii bind téere boo xamul li tax mu bind livre doo mën a dégg téere bi ndax livre li ci nekk yëpp du moo tax waa ji jóg dafa am lu ci tuuti lu ko tax jóg ci livre bi kon xamal loolu ba pare soog di mën a jàng livre bi la tax mu jóg nga xam ko li nga ci mën a jëriñoo nga jariñoo ko li nga ci mën tul jëriñoo nga bàyyi kon ñun ñëpp tey ban woote la ñu wuy si kan moo ñu woo sharia moo ñu woo ci ci ci jaarale ko ci ci njaboot gi ya ayuha alladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli ida daakum lima yuxyikum waalamu an allaha yaxuulu bayna almari wa qalbihi wa annahu ilayhi tuxcharu kon yàlla nee na wuy si leen ñi leen woo waaye ci sama tur ak tur ndaw li nga xam ne moom laa tegoon ci ci seen kanam pour mu di leen jiite moo tax suñu borom wax ni lilladina stajaabu lilladina stajaabu li rabbihimul xusna ñi wuy si yàlla te yàlla tax yàlla nee na maa leen di fay waaye walladina lam yastajibu nag nañ seet fu ñu jëm ko defee nag ñun ñépp xale yi di waxtaanee benn mbir mbir moo xam ni waxtaan wi du rek ni lii la ñuy waxtaane mais nañu xam li ko sabab bu ñu xamee li ko sabab rek wuute bañ na see bañ a am mais bu ñu xamul cause bi tax ñu daje xanaa waxtaanee di bind rek tudde ko tanzimu nasl wala tahdidu nasl wala lu mu man ci doon ci anam ñaari anam yooyu mais cause bi tax nit jóg di ko daje di ko waxtaane tey nañ ko xam. buñ ca xamee kan lañ cee njëkk déglu bu ñu dégloo yàlla ban moo tax fa ida qaala allahu fala amatul benn xawlu bu war a jóg wa ida xakama fala amul benn xukuma bu war a jóg bu ko defee nag mbokk yi ñun ñépp ñu déglu ak yàlla bañ a jiital suñu bëgg-bëgg bëgg jiital bëgg-bëggu yàlla ndax yàlla moo yor lépp kii di seen maam Seydi Hadji Malick du moom mooy daganal du moom mooy xaraamal du yonent bi di daganal du yonent bi di xaraamal kii xaraamal kenn la kii daganal kenn la ko defee nag ñun ñëpp ñu delluwaat comme que dañuy wax ni ay jullit ay jullit nañu daje xam naa duma ma yàq waxtaanu xale yi waaye ci biir ay jullit nañu daje lu tax jullit yi rek ci boobu problème en tant que ñu ñëpp ñu ñu yàlla bind ñëpp ngi fi bari lool. am ñu ngi ci si fee teg fële am ñu ngi ci seppi teg leen ni leen yéen la ñu bëgg ngeen wax ci lii ngeen ànd ci wala ngeen ñàkk ci ànd en tant que ay jullit bokk benn réew kon yooyu yëpp ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ko defee nag ñu déglu xale yi ñu waxtaan waaye ñu xam ni rek mbir la moo xam ni mi sosoowul tey fii mbir la mu yàgg mu yàgg mbir la mu yàgg yàgg lool sax du tey rek la te loolu ñu ci bari ci ñun xam nañ ko am na ku fi nekkoon kilifa am yu ñu teg ci loxoom pour mu am lu mu def mu am yu mu jaayante yooya tey ci lii la bokk lii ñuy waxtaan mu nga ca yemu d'accord ni dana fexe ba mu am ci kon il faut yooyu yëpp ñu situé ko teg ko joxe livre yi nga xam ne ci lañ ko tibbee indi ñëpp kenn ku ci nekk mën cee dellu plus li ngeen indaale wan ñu ko ñu mën cee sukkandiku ñun ñëpp. bu ko defee kenn ku nekk dem ak xel mu dal waaye dem ak sukkur jullit du dem ak sikki sàkk jullit day dem ci yaqiin day dem ci li ko wóor aynal yaqiini aynal yaqiini ak la xàqul yaqiin jullit ci jant yi day tëkku day tënku ci lu wér lu dul am ñaari xalaat ñaari xel ndax toll nañu foo xam ne fii ku dem ak ñaari xel xam nga foo jëm ku dem ñaari xel xamoo foo jëm la yonent bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam ba muy dem ala hal ndax jotal naa ñu ne ko ballaxta ya rasulallah mu ne allahumma ish ishhad yàlla seedeel ni gaa yi kat nee nañu jotal naa kon ñun ñëpp ñu bokk déglu xale yi kenn ku ci nekk xam-xam la nag xam-xam la ñuy wax waaye xam-xam dafa am fu ñu koy teg waaw al ilmul muqawwam xam-xam buy jubbanti teg nit ci yoon moo gën xam-xam buy niroog dóor dënn nga defee nag ñun ñëpp ñu wàcc ci kaadaru waxtaan pour defar sunu sunu suñu charia <laughs> suñu diine ah bu ko defee nag ma jox ki war a tàmbali bismillah si di kat jël di wax bu tàmbali salaamaaleykum أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أهل الصفا أصحاب المعالي والفضيلة أصحاب السماحة والسيادة أيها الحضور الكريم نحييكم بتحية طيبة مباركة قائلة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته xam naa dem sàddax li wolof di wax naan dungu ne du teew bi nataat gannaaw bi ñu musloo ci seytaane sant yàlla mi lu may nu teew julli ci sangu sang yi muhammad sallallahu alayhi wa ñu ngi yëkkati kàddu nuyoo kàddu ziyaar di ko teg ci suñu loxo kilifa gu tedd gi toog muy suñu bàyyi sëriñ Babacar Si Cheikh Alhaji Abdul Aziz radiyallahu anhu moom moo xam ci loxo bu mu koy teg nuyu ko ci turu lajna bi nga xam ni noonu kàllafoon ngir ñu modéré daje bi nga xam ni tabaarakallaahu dafa dégg bokk ci daje yi nga xam ni daje xam-xam la nga daje leer ya ñu ñaan yàlla yàlla nu yàlla defal dégg te defal lu topp fa tabaarakallaahu ñu ngi nuyu mbokk yi fi teew yépp moo xam ci kilifa moo xam ci borom xam-xam moo ci sëriñu daara moo ci ndongo daara moo ci kilifa àdduna ñu ngi leen di nuyu di ziyaara di leen ci coono yi nga xam ni togg nañ ko ak wax ni oto bu ba pënam crevé ñu soppi pën fa beneen pën yaakaar naa ni pën boobu du mën a sañ def lu raw li pën bi defoon mu mel ni lajna bi dañu programmé woon ku leen modéré ci daje bii waaye yàlla dogal moom ci kàttanam mu weddi wax ja ki ko waroon a modéré am ndog ñun ma kon yaay daal di ñëw modéré jotaay bi ma ne xam naa kon ma kon na boobu ñooy bokk taxawaay ci doxalin boo xam ne dana xaw sant njaay dama njaay di baal wala jóg wala ndaw moo tax mu ngi leen di jéggalu rek lu ci dëng ngeen xam ni ci wàll woowu la féete waaye suñu yéene ak suñu bëgg-bëgg moo doon mu jag ni ko ni nga xam ni waa comité bi bëggee woon nañu ko ba tànn ki nga xam ni moo waroon a modéré jataay bi fa tabaarakallaahu ak ah waaye ñu yàlla weddi loolu ñu di leen di bu baax a baax ak ah mu mel ni nag ñoom ñoo nu ni bu ñu tàmbalee fa tabarakallahu ci wàllu gàttal ndax bëgg nañu balaa ñoo nodd jëm ci jàkkat yi waxtaan wi ñu mën koo jeexal moo tax bëgguñu sax guddal ci wàllu tàmbali bi dañu ni woon pour nu tàmbalee ñi nga xam ni ñoom lañu joxoon pour ñu indi seen contribution ci daje bi fa tabarakallahu mu ngi nekk suñu kilifa suñu mag suñu sëriñ Cheikh Alxaaji Malick Sy bu suñu bàyyi sëriñ Babacar Sy Mansour moom fa tabarakallahu bokk na ci ñi war a wax gannaaw loolu yëpp ñu teg ko rek bi tarti bi ci toftale ni nga xam ne noonu lañ ko waxee te mooy ki ñuy njëkk a jox mu wax ci mbooloo mi moo di docteur Chimère Diaw gannaaw loolu Serigne Moussa Fall moo ci tegu gannaaw loolu docteur Ousmane Ndiaye ki nga xam ne nag mooy miskul xitaam ni ma ko waxee ci njëlbeen di suñu mag Seydil Hadji Malick bu suñu bàyyi seen si ma suuf ñu ni woon it gannaaw loolu waxtu wi nga xam ni tënk nañ ko ci bëgg ñu defal nu ko ci seen waxtaan moo di fukki minute insha allahu gàtt na waaye xayrul kalaami maa qalla wa dalla ñu ni ci fukki minute bëgg nañ kenn ku nekk ci ñoom li nga xam ni jotoon nga ko dajale ci mbind ak ci li xam ni jotoon nga ko def ci gëstu nga dimbali ñu ko ci waxtu bi gannaaw loolu itam fa tabarakallahu waxoon ñoom itam ci waxtu yu néew ku nekk wax ca li nga xam ni itam am nga ko ci xalaat wala am nga ko ci gis-gis te mu tënkoo thème bi nga xam ni moom lañu jël gannaaw loolu itam xam ne dégg-dégg bu ñu xaw lajj la ci dégg-dégg bu ñu am ci wàllu planification ak différence bi xam ne dana am ci planification bi nga xam ni dégg nañ ko ñu di ko yëkkati ci réew mi surtout ci jamono yi mujj nga xam ni léeg-léeg dana am lu ñuy tuddee xawtu wala amalgame ci wàllu xam li ñuy wax planification ak li ñuy tuddee tahdidul nasl mooy yemale bi nga xam ni dañuy yemale wàllu njur ak wàllu njaboot mu ni loolu itam dana ci dikk dana dikk yëpp ci li nga xam ni am na tuuti relation ak li ñuy waxtaane ci ay feebar yoo xam ni dana ci juddoo ñu mel ni feebar yi nga xam ni dana tukkee ci wàllu sëy ak wàllu njureel loolu itam dana ci dikk booleeg li nga xam ni kilifay réew mi tey saytu wàllu wér yaram am nañ ko yéene ak yaakaar ci doxalin yu ñu fas yéene doxal ci wàllu woowu moom docteur Chimère Diaw dana ci dikk ngir nun ñi nga xam ni ñooy déglu loo am ci dégg-dégg bu leer waaye itam mën a xuus ci biir thème bi gannaaw bu ñu déggee ñi nga xam ni seen xam-xam màcc na ci wàllu woowu te loolu yaakaar naa bu nu koy def dañu koy roy ci yonent bi sallallahu alayhi wa ndax moom yonent bi sallallahu alayhi wa bi ñu ko indilee problème mu xarafal jigéen bi ci jamonoom dafa woo ñi koy def te di ko jëfandikoo laaj leen ci seen xalaat ak laaj leen nañu koy defee ba ñu ko ko waxee ba noppi ca la daal di wëlbatiku génne xalaatam wax li mu ci wax kii moom xadara bi di suñu maam Seydil Xaaji Maalik radiyallahu anhu mag ñi nettali nañu ca peste jamono bu peste amee te tubaab yi bëggoon a taal déttu Ndar la mu ca wax ak na mu ca jëfe ku ne xam na ni ci cadre boobu la ko teg te mooy dem ci ñi nga xam ni ñoo doon saytu loolu laaj leen ñu wax ko mu ni leen sama loxo ngi ni ñett leen ma ñett ko mu wëlbati ko dem ci waa Géeju Ndar ni leen lii kat dafa ñëw ngir suñu wér gi yaram dara taxul kon na ngeen dem ngeen ñett kon loolu moo waral nu jiital ko ngir mu wax nu ci dégg-dégg ñoom seen xam-xam ak ni nga xam ne noonu lañu ko gisee li nga xam ni def nañ ko ci ay recherche def nañ ko ci ay gëstu ñu tegal na ko ci taabal bi balaa ñu cee dugg su noppee nag gannaawam suñu mbokk Moussa Fall dóora ñëw xam naa ngir gën a gàttal rek dañuy jox euh, docteur Chimère Diaw moom mu ubbee li nga xam ni wax naa ko sànq ni moom la fas yéene waxtaane gannaawam nag fa tabaraka allahu ñu jël bisuwaat ci yeneen intervenant yi nga xam ne ñoom ñëw kon docteur Chimère fanta tafaddal mashkura wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al-anbiyaa wa rasulillah sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi ñu ngi lay nuyu nuyu yi gën a teel di la baalu àq di baal ñëpp di jégalu ci euh, kàddu yi nga xam ne ñu ngi ko fi yëkkati xam ni yàlla rek moo ñu ko nattoo waaye xëy na du xam-xam waaye xëy na am na ci xam a xam waaye yàlla man la ko mooy euh, nekk ci boobu ñu wax planification familiale di indi ay nuyoo ministre de la santé professeur Awa Malikon Seck di wax nuyoo yi koy teg sa loxo pour nga tegal ko ko ci loxo maam Abdou mu tegal ko ko ci soxla loxo almaxdum nee na gis na ñaan yi ndaxte euh, xëy na épidémie bii rek fi jóge fan yi euh, ñuy wax Ebola euh, nee na yëg na bu baax seen ñaan donc mu ngi leen di gërëm bu baax ci loolu parce que gis nañ ni xëy na feebar bi ëlëm na dëkk yu ñu wër yu bari waaye Sénégal mucc nañ ci te loolu ñun di ñaan mu continuer te loolu suñ ko amee sëñ bi yéen seen ñaan yi ci bu baax a baax ngi leen ciy sant di leen gërëm donc ànd ak feeg ay kilifa yi nga xam ni ñoo ñoo ànd ak man docteur Oumar Sarr moom mooy médecin chef de région bu Thiès ànd ak docteur Ibrahima Kamara moom mooy médecin chef bu dig bu Tivaouane ànd fi directeur bu hôpital bu Tiwaawan ak ñëpp ñi nga xam ni moom mooy waa organisation mondiale de la santé waa Intra Health ñoom ñëpp ñëw nañ ci détail donc di rafetlu bu baax euh, waxtaan bi nga xam ni euh, yëkkati nañ ko ci barab bu tedd bi di ci sant yàlla bu baax lu tax ñu ciy sant mooy dafa di barab bu nga xam ni am nañ fi yaakaar bu baax a baax a baax xam ni lépp luñ fi ñaan mën nañ am yaakaar ni yàlla mën nañu ko defal di wax ni lu tax ñu indi lii di politique planification familiale lu tax lan moo indi coow li fan yi ak yiy dellu dañu def ay gëstu depuis 1995 dañu gis ni senegal dañu gis ni jigéen ñi dafa am ñu bëri ñu nga xam ne dañuy loru ci seen wàllu euh, suñuy am doom loru ñu gis ni jóge nañ ci 555 wàcc ci 510 après ñu dem ba 401 léegi ñu ngi ci 392 jigéen ñu nga xam ne ñu ngi décédé ci 100000 naissances ça veut dire que sur 100000 jigéen suñ ci de 392 yi dañ ci doon ñàkk seen bakkan donc loolu suñ ko xaymaa muy juróomi jigéen yi nga xam ne dinañu ñàkk seen bakkan par bis ci Sénégal. loolu soo ko cent par 365 ci at mi day tolloog 1825 jigéen ñu nga xam ne ñu ngi loru ci wàllu ëmbët émi ñu def euh, ñu def ay études études yooyu ñu mucc waaw donc ñu def étude ñu wane ni euh, jigéen ñooñu kat leen ci mën a sauver ak lii ñu planification familiale ndaxte bu ñu gisee ci ñetti jigéen ñu nga xam ne ñu ngi eh, gaañu ñu ngi ñàkk seen bakkan kenn ki mën leen ko sauver ci wàllu planification familiale donc muy lu nga xam ni loolu moo tax a jóg ministère de la santé ñu gis ni xale yi tamit ñi nga xam ne ndaw yi nga xam ne amuñu juróomi at ni ñoom it également di ci ñàkk seen bakkan dafa bari lool te ñooñu seetlu nañu nit mooy jigéen ñooy dundoo ci jigéen ñi nga xam ne dañ ñàkk seen bakkan xale yooyu souvent bi ñu am ku leen toppatoo te góor ñi ci kër ñi tamit duñu am euh, euh, doole pour toppatoo leen yenn saa yi dañ leen di joxe te yenn saa yi toppatoo bi ci war xëy na duñ ko am su ko defee yeneen feebar yu dugg yu mel na jaare lu nga xam ni xale bi suñ ko waroon ñàkki du am ku ko yóbbu yooyu yëpp ñu gis bi war nañ ko war nañ ci mën a wax Sénégal xool politique planification familiale planification familiale nag suñ ko waxee dafa am ay njaxital mooy dëkk bu nekk ak njeexital bi mu ci wut njeexital bi ci Sénégal wut moom moo di jigéen ju nga xam ni dafay dafa am doom ñu mën a ko bàyyi ba mu noppali mu mën a amaat beneen doom pour mën a toppatoo këram toppatoo njabootam te loolu ñu ngi ko def ci waay dencante ñi nga xam ne ñaar ñu nga xam ne ñooy denc dencante loolu lu am solo la ndaxte politique euh, planification familiale bu senegal ci couple marié la ñu wax ñi nga xam ne dañuy dencante beneen bi mooy dafa di lu nga xam ni kenn du ko forcer kenn dañuy waxtaan ak ndaw moom mooy ñëw fekk euh, ci structure santé yi wax lan mooy jafe-jafe ñu mën a waxtaan ak moom waxtaan ak moom mu ni moom su fekkee ni méthode bii la jël ñu gën a waxtaan ak moom ci méthode boobu ba pare nag su boobaa tamit duñ ko bàyyi dañ koy wax muy dellu si ñu koy jox rendez-vous ko seet te tamit il faut que ñu xam méthode planification familiale yi bare na lool am na ci méthode yoo xam ni lu soxla nga jël dara dañ lay expliquer sa yaram ba nga xam ko nga commencé ko jël am na ci méthode yu nga xam ne ay hormone la yu nga xam ne dañ la koy piquer yi nga xam ne dañ koy def sa yaram muy muy génn ndànk-ndànk di nga xam dina la mën a permettre nga nekk ci niigu sëy te doo am doom wala nga sooy am doom yow yaa koy sàkku ñëw ñu dimbale la ci dindi lool nga mën a am doom ci ay fànn yu baax ba donc beneen bi mooy wàllu pharmacovigilance mooy garab yi nga xam ni dañ koy joxe ci wàllu planification familiale garab la yu nga xam ni dañ koy saytu bu baax a baax balaa muy dugg Sénégal am pharmacie nationale euh, euh, et des médicaments de contrôle de médicaments moom moom mooy saytu garab yi xool ko ak ak experts yi nga xam ni dinañu jóge fu nekk ay professeurs d'université institution yi nga xam ne ñu ngi ñuy jàppale ñoo ñëpp ñu mën a joxe seen accord pour que garab yi mu mën a dugg Sénégal su duggee Sénégal ba pare dañuy continuer di ko suivre su fekkee ne dañ ko jox jigéen ñi dañ koy continuer di ko suivre pour que lépp lu nga xam ne gis nañ ko ci effet indésirable parce que garab également su fekkee ni nit ki da koy jël mën na am njeexital bi nga xam ne moom lañ ci doon xaar ñu bañ ko ci gis waaye njeexital bi su fekkee ni nag lor bi dafa xaw a loolu dañuy dañuy arrêté étude bi loolu ñu jëlaat garab donc loolu muy lu am solo di wax ni également dégg nañu ni également politique planification familial ñu bëri dañuy jàpp ni pour limitation des naissances muy lu nga xam ni bokkul ak limitation des naissances parce que politique de limitation des naissances dafa am ay pays yi nga xam ni dañ ko am lu mel ne Chine parce que ñooñu dañuy génne ay loi ni dëkk bii kat jigéen benn doom lañ ko am beneen doom boo fi am dinañu teg ci moom ay daan wala dinañu fexe également ñu ñu wutal ko ay pexe yi nga xam ni dina ko mën a dindi donc fii muy muy muy muy muy lu am solo lu nga xam ni politique la bu nga xam ni pour mën a bàyyi jigéen gi mu noppalu la mën a toppatoo doomam parce que ci ñun suñu politique su fekkee jigéen gi dafa toog ba nga xam ni am na diir amul doom su ñëwee dañ ko su ñëwee ci suñu structure de planification familiale dañuy waxtaan ak moom pour mën ko dimbale ci man lay amee ak doom parce que planification familiale du rek ay ay produits yu ñuy jël waaye pour mën a seet jigéen ki la xool li ci yaramam te jigéen ñooñu nga xam ni gis nañ ñoom ñooy fréquenter structure de planification familiale yi ñoom su fekkee ni am nañu feebar ñooñu la ñuy gën a mën a détecter feebar yooyu pour gën ko mën a teel faj di wax ni également am na beneen bu nga xam ni ñu ngi koy wax jëmale ko ci wàllu planification familial mooy planification familiale yi ak jeunes yi ñun politique bi muy wax moom mooy waaye dencante jëmalewuñu ko ci ki nga xam ne amul borom kër muy góor ki wala ku muy ku jigéen donc loolu mooy politique bu Sénégal muy li nga xam ni également biñ ko tegee ba léegi dafa am ay ay ay wax ay ay débat xëy na dégg ngeen ci télé bi ci rajo yi débat yu baree bare ñu ni kat mbir mi dañu nekk ci dëkku diine dëkk bu nga xam lépp lu nga luñ fi jóge luñ fi yëkkati war nañ fi waxtaan ak suñuy kilifa war nañ leen ci déglu loolu ministre de la santé woo ñu sas ju loolu ni ñu il faut que ngeen dem ci nit diine ngeen gën a waxtaan ak ñoom mu gën su fekkee ni dafa am ay question yi nga xam ni am nañ ko ngeen mën leen ko leeralal ndaxte loolu rek mooy politique ministère de la santé mooy lim ci jublu mooy xeex ndeeteel li ci jigéen ñi ak doom yi te loolu planification familiale waaye nag il faut que ñu encadrer ko encadrement bi mooy la mooy ñu waxtaan ak nit ñi ñu xam ni dafa am ci ñi nga xam ni moom ci ñoom la ñu jublu parce que études yi dafa wane ni 29 virgule 4 pour cent des femmes dañu soxla planification familiale te amuñu ko donc ñooñu lañu tax moo ñu tax di wax donc moo tax ñu ne il faut que ñu dem waxtaan ak kilifa yi waxtaan ak nit diine waxtaan ak képp ku nga xam ni am na influence ci population pour ñu mën a wax lan mooy politique bu ministère de la santé ñuy sant yàlla bu baax nag ci bi nga xam ne famille bi jël nañu initiative bu toll nii ni dinañu waxtaan ci mbiru planification familiale muy lu ñu rafetlu lool parce que ñun dañ ko bëggoon a dañ ko mosoon a bëgg waaye mu jóge fii si ñu ngi leen ciy gërëm bu baax di leen sant xam ni ñun Sénégal ñun ñoo ko bokk lépp lu fi yàqu ñu ñii la yàqu lépp lu fi baax ñu ñii la baax donc si ñu ngi ci ñu ngi leen ci ñaan ñi leen di gërëm di leen sant di wax ni soxla ñu seen ñaan soxla ñu tamit seen accompagnement parce que du lu ñu yomb ndaxte su fekkee ni ñu ngi defal fukk nit gas fukk nit suul mën na am lu lu baax donc loolu lañ ci jublu ñu ni woon dinañ ñëw fii ci Tiwaawan bi ñu déggee ni dinañu waxtaan ak euh, kilifa yi déglu leen ci sàkku ci seen ñaan ndaxte ñun nii ci ay fami diine la ñu jógee xëy na fu xam sama papa xam ne fii fii la fii la nekkoon ci keppaar maam El Hadji bii la nekkoon te tamit également fii lañ ko denc man yàlla dafa def ndax ci bâche bi ki ma jàngal français mu xëy seen naa ko fii muy professeur Touré moo doon sama professeur de français ci lycée Ferrer à Saint-Louis donc may may may kontaan bu baax ci li ma ñëw fii xam ni dama ñëw ci samay sëriñ xam ni dama ñëw ci sama samay kilifa di jël loolu bu baax ci kàddu yi nga xam ni yëpp ci naa donc di leen sant bu baax ci invitation bi di wax ni wax dëgg ministère de la santé kontaan nañu ci waxtaan bi di leen di leen sant wasalaamaaleykum wa rahmatullahi tabarakallahu jërëjëf docteur Siber ci leeral yi nga xam ni indil nga ma ko mu jëm ci dégg-dégg bi ñu ci day dégg man dama xaw jaxase xam naa dama waaw ngeen baal ma ki nga xam ne mooy suñu beneen intervenant bi mooy maam Moussa Fall fa tabaarakallaahu moom nag xam naa li nga xam ni war na ko indi tegal na ko ci taabal moo di ñetti axe yi nga xam ni ci la war a intervenir bi ci njëkk mooy la place de l'allaitement maternel en islam lan mooy taxawaayu l'islam ci nàmpal xale nàmpal liir nee na beneen ñaareel bi mooy dégg-dégg bi xam ni war nañ ko am ci wàllu planification familiale te mooy définition du planning familial selon le congrès de Rabat de 1971 ñetteel bi mooy la pratique du coït interrompu ou azl selon la charia nee na bu ñeenteel bi nag mooy différentes définitions du rire et sans la mémoire et à bihi wa kafa wasalaatu wasalaamu ala almustafa wa ala alihi wa ashaabihi altayibiin altaahiriin wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hudaahu ila yawmi ddin wa radiya allahu an sheykhina albarzaqi almaxtuumi alxaatimi almuhammadiyi abil abbaasi ahmad ibn saalim al tijaani ahallahuma allahu daara tahani wa an jamici muqaddamihi wa min abrazihim wa aclamihim sheykhina wa jaddina wa wasilatina alxaaji Malik Si ibn Usmaan taaba alayhi taaba alayhim arrahman asxaab almacaali walfadila alcheikh Ababakrin Si ibn alxaaj Abdul Aziz radiyallahu anhu nuxayyika taxiyatan tacummu jamica alxaadirin walxaadirat بإذن الخليفة العام للطريقة التجانية الشيخ أحمد تجان شريف المكتوم أجده الله ونصره وأطال بقاءه ونحيي أيضا بصفة خاصة شيخنا ووسيلتنا العبد العزيز سيك ابن شيخ عبد أبي بكر سيك رضي الله عنه رب اشرح li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk yi ci waawan mbokki diine mbokki pas-pas sëriñ euh, Abdul Aziz sëriñ Babacar Sy Abdul Aziz ñu ngi jiital ci nuyoo yi jëmm ju tedd ci toog waaye itam di ci toxtal kàddu jéggalu ndax wala tusaawihi wala tamshi amaamahu suñuy sëriñ lañu waruñu sax tolloog ñoom niveau bu ñu toogee ci kaw dañu war a toog ci suuf waaye nag protocole moo ko laaj wa illaa du ñu fi toog bay jël kaddu li ci des itam kaddu bi du mën a gudd ndax itam suñu sëriñ moo ñu jàngal wala yukathir indahul kalaama wala yakunu basitan kalaama sa sëriñ ba la joxee kaddu it lu mu la yaatalal yaatalal tënkal kaddu bi ci kanam te ñun foofu la ñuy naanee foofu la ñu bokk di jéggalu sëriñ bi ci kàddu yi ñu yëkkati ndax at yi matewu ko xam-xam bi matewu ko dara bi matewu ko yàlla dogal itam jotaay bi nekk jotaay boo xam ne suñuy kilifaa ngi fi sama waajuru bopp maam mu ngi toog mu mel ni loolu itam dafa ñëw rek pour dooleel ñu waaye itam dégluñu ndax professeur la bu ñu defee lu jaar yoon rek insha allahu mu gàddantuñu di nuyu imam Ousmane Sam bi nga xam ne mooy fa tabarakallahu coordonnateur réseau islam et population di nitu daara bokk ci Kébémer di nuy itam kilifa yi fi teew teewal fi wàllu santé mu mel ni thème bi comme yu bariwul dañuy delluwaat rek ci préoccupation yi nga xam ne sëriñ bi wax na ko léegi ndax ay jullit lañu te jullit benn xaanuun la am muy sharia te sharia nekkul loo xam ne dañu koy bricoler déedéet dañ ko fi fekk mu nekk loo xam ne conduite la bu ñuy tenir charia nag lu mu ñu daganalal dañ ciy am droit waaye lu mu ñu xaraamalal duñ ci am droit ñu ngi jégalu nag ndax bërëb bu ñu toog Tiwaawan la Tiwaawan lam nati huna li nazidakum ilman walakin atayna li naxuda minkum ilman fii bërëbu xam-xam la looy wax na nga ko xam ndax fii la daara ju sosoo fii la Cheikhul Xaaji Malik tëdd te li mu jàngalee tabaarakallaahu njëriñ bi mu am kenn xamul nu mu toll bu ñu fi ñëwee di wax nag ñëwuñu am intention wu yokkal leen lenn ci xam-xam waaye dañ ñëw pour jël si ci yéen ndax fii la ñu jàngee fii la ñu exercer suñu première fonction te fii la ñu bokk ku xam diggante Cheikh Seydi El Hadji Malick ak Abdou Boli Fall nga xam ne maam Fawa Dubale moo leen bokk jur Abdou Boli Fall moo jur ki jur sama waajur toog kon ci kër gi laa bokk kenn ëppale ci nag waaw su ko defee kon thème bi thème bu sensible la ndax soo ko xasee tudd niñ ko tuddee rek maanaam appellation bi muy planification familiale dafa jóge ci tubaab waaye concept bi yàgg na jógewul ci tubaab léeg-léeg sax ma dégg ñu koy tënk ci jamonoy Malthus loolu bu ñu ko defee ñun jullit dañuy réer ndax Malthus du suñu référence te bi wàllu planning di xew boobu Malthus buñ koo xalaat li am ba des mooy mbir mi yàgg nañ ci waxtaan congrès bi amoon Rabat en 1971 nga xam ne dafa dajale borom xam-xam yépp ay sociologue ay médecin ay islamologue ñuy waxtaan ci mbir mi bu ñu paree dañ def benn résolution bu gàtt ne planning buñ ko mënee nangu ci islam mooy lii ak lii ak lii mooy li ma nar a wax tey ittifaaqul mutazawijayn bi mahdi iradatihim accord entre mari et femme te mu nekk loo xam ne seen plein gré lay jóge duñ leen ko forcer bi duuni ay yi ikra kenn du la forcer planning da koy bëgg def ko boo ko bëggul doo ko def ala istixdaami wasilatin shariyatin aminatin méthode yi ñuy utiliser pour def planning day nekk méthode yoo xam ne dañ koy sayu saytu alhamdulilah bi suñu docteur waxee léegi ne méthode bu fi dugg xam nañ ko xam nañ composante yi xam nañ yan effet la mun a jural ki koy jël mu ne li xam xamli ngir yéexe diggante ëmb ak moroomam aw li taajili yi walla ngir gaawal ndax docteur wax na ne politique bi bokk na ci ki nga xam ne mënul am doom ñu fexe ko saytu ba keroog mu mën a am doom kon loolu yaakaar naa jar na préciser mu ne nag li tax ñu def planning bi ci ëpp solo mooy azuruf as-sihhiya les les conditions sanitaires les préoccupations de la santé maanaam jigéen médecins yi bu ñu jàngalee nañu jigéen bu nefee daf koy lor ñun jullit benn acte lañu am mooy dëppoog li ñu médecins yi wax ndax fas al bihi xabiran ndax wala yunabbi'uka mithlu xabir man duma médecin waaye médecin bi bu ko ci ay leeral wax nañ ci fa tabarakallahu bu bare bare ci ay ahadith ñenn ñi ñu ne nag azlu ci jaam yi la yam du yegg ci gor yi foofu itam nañ ko leeral ndax al madahibul arbaa yëpp bi ñu leen xoolee question yi question bi réponse bi ñu ci indi mooy al azlu jaizun mutlaqan inda al jaarati li anna nusuusa waradat fiiha wala yajuusu inda al xurrati illa bi idniha yaani concertation bu amee diggante borom kër ak soxnaam doonte du jaaw su suñ ci d'accordee mën nañu doxal aslu boobu te fu doxal aslu ci jamono yonent bi alayhi salaam mën nga doxal espacement des naissances ci méthode boo xamante ne du la gaañ du la lor su ci des beneen maxaawis bi nga xam ne dañ koy am mooy qatlu nafs bi ñuy faral di wax ndax itam dafa jar a wax la taqtulu awlaadakum xashyata imlaq bu leen rey njaboot yi ndax ragal dépense waaye nag foofu itam yonent bi alayhi salaam ndax gaañe dañ doon waxtaan ci azlu ba mu yàgg am ku ne ko yonent bi ñu ne dañuy def azlu sallallahu alayhi waaye nag inna al yahuda tuhaddithu anna al azla al mawudatu sughra yonent bi alayhi salaam moo tontu ne kadabatil yahud mbir mi demewul noonu ñu ne azlu mooy infanticide mineur mu ne du loolu loolu itam li koy dëggal mooy ali ibn abi talib tontu na ci ci benn werante boo xam ne ñaari nit ñu ko doon def ci wàllu azlu ba mu yàgg mu laaj leen li ngeen di déyante lu mu doon ñu ne ko ñun dañuy waxtaan ci azlu ñu ne mooy al waqdul xafi mooy mawudatul suwara rek alin moo tontu daal ne laa takunu mawudatan illa ida tamurru alayha tarat mu daal di lim suratul muminuun tàmbalee ko laqad xalaqna al insana min sulalatin min tin jeexalee ko sa tabarakallahu ahsanul xaaliqin omar moo jug nuyu ali ne ko atala allahu baqaaka jazakallahu xayran ni nga waxee noonu la yonent bi nag alayhi salaam bi nga xam ne mooy daj dëpp gi moo ñu wax beneen xadis bu leer ci mbir mi nee na da def attention ndax képp kenn ci yéen yàlla dogal na képp kenn ci yéen jaar na ci yi étape ñu laaj ko yan étape la mu ne inna ahadakum la yujma'u xalquhu fi batni ummihi arbaina yawman thumma yakunu alaqa mithlu dhalik thumma yakunu yakunu nutfa mithlu dhalik thumma yursalu ilayhi malak fa nafaxa fihi ruux wa yu'maru bi arbain bi arbai kalimatin ba xadis bi jeex mu ne yéen ñëpp da ngeen am étape yu ngeen jaar ci seen bi ngeen nekkee seen diiru yaay tëbu leen tëb rek nekk ay nit yu noyyi waaye da ngeen jaar ci nutfa jaar ci mudga jaar ci alaqa te étape bu ci nekk 40 jours la à partir du 120e jour ci la suñu borom subhanahu wa taala di yónni malaaka mu insufflé leen li ñuy wax ruux ngeen commencé dund dafa wax ne ida atat ala nutfati arbaatu ashhur baasa allahu ilayha malakan fa nafaxa fiha ruux fi dulmatin thalath mu ne balaa ñuy wax waxu nit day fekk mu am ci biiru yaayam mu am ci biiru yaayam 4 mois 4 mois loolu la médecine indi kon ki la wax ne booy def planning yaa ngi rey sa mu ngi lay bëgg nax ndax reyagoo sa doom ndax rey amul foofu loolu itam ak xadis ñëw na ci wax yu leer ñëw na ci bu ko defee itam beneen domaine bi nga xam ne mooy al xiilu muy nefe dafa am interprétation yu bokkul benn bi yu bi alayhi salaam dafa wax ne iyaakum wal xiil mais ngeen moytandiku situation bi di nef nda mu ne fa inna al xiila yudriku al farisa fa yudaatiruhu an farasihi mu ne xanaa xamoo xale buñ ko nefee dina dem ba nekk mag sax nef bi ne am sekel ci moom mu dem ba nekk ci fasam di daw ñu daaneel ko li koy nërmeel du lenn lu dul nekk dañ ko juree woon ndax nàmpal matul bu mu yàgg mu ne laqad hamiltu an anha anil xiila xatta wajadtu anna alfarisa wa ruuma kaanu yafaaluuna dalika fala yaduru awlaadahum doon naa tere mbir mi mel ni heure jot na ñu daanal xadis boobu rek incha allah doon naa tere mbir mi waaye ba ma yëgee ne perse ak romain yi ñu koy def ci laa xam ne jaruma koy tere mais baatu xiila boobu bu ñu xoolee définition bi ci bi si nga xam ne gis nañ ko yëpp ñaari signification la benn bi mooy jigéen bi ëmb bi ëmb dañ doon laaj ndax jigéen dina ëmb ba pare di continuer di sëy ak borom këram boobu leen ñu tontu ne loolu da doon naa ko tere waaye yàlla dogal ne fii ñu toll gis gis naa ne persier ak romain doon nañ ko def parce que loolu am na ay interprétation yu ñëwee na boo demee ci alfatawa muasara da ko ci fekk bi muy bañ mooy ëmb boo xam ne ki ngay nampal nampagul deux ans nga indi beneen ëmb ci kawam su boobaa al xiid lañ koy tuddee kon ñu bàyyi xel yooyu yëpp xam ne islaam diine waxtaan la diine leeral la waaye nag duñ fi daganal lu xaram mukk waaye itam duñ fi xaraamal it lu dagan mukk insha allahu rabbi wasalaamu aleykum wa rahmatullah lan fi tàcc contribution solo yaa xam ne defoo ko wax nu li nga xam ni docteur Simbel jiitaloon na ko te wax ko te ku ko ci xam-xamu médecine dafa mel ni loolu nga ñëw tënkal nu ko ci diine ak lislaam mu ginnaaw yàlla lépp ci moom la ko yàlla jaaree ndax ci keppaaram laa jànge fi laa yaroo fi ñu toog nii ñun ñaar benn pot lampe fi nekkoon yàgg na xaw na ma fee bett ma wiiru ma déglu ba pare ba gestu ma su ngeen góorgóorloo yéenay défendre Tiwaawan ëllëg ci wàllu xam-xam booba ay quatre-vingt-quinze seize la Scotland bu fii ñu toog nii kon ak taarix yu ay nafs te ñu lay jéglu bu baax bëggoon naa sax balaa may def waxtaan bi ak Maodo bi ma ñëw diisoo see yow mais li tax doo diisuma see yow lenn la ndax ma diisoo yow lii sa idée muy sa idéologie si man njaboot laa damay tënk te comme dañ naa gëstuloo nag xaaral ma gëstu indi man xam naa ne loo si d'accord wala lu si erreur dinañ ma nangam ak nangam bàyyi ko te soo ma ko loolu euh, man nag am ndongo daara fii si daara bokkuma benn association bokkuma benn benn ONG liggéeyuma public liggéeyuma privé aw ma carte salaire aw ma compte <laughs> am ndonga daara laa rek bu ñëw toog ci kanamu sëriñam di tare li jàngoon ci daara ji bu jubee ci mbaaxu yàlla la naka noonu ci ñun la euh, ñu dugg nag ci waxtaan bi waxtaan bi dama ko def ci ñaari point benn bi mooy at taaqim mu di planification bi ñuy wax ñaar la dafa am lu ñuy wax at taaqim mu abbat am nañu wax ak taaqim mu aqat dafa am planique boo xam ni limité nessance la dootoo jur boroleen bi ñuy waxtaane dafa am na nañu wax masala shar'iyya am nañu wax masala fiqhiyya masala shar'iyya mooy masala problème boo xam ni problème sharia la bu ñu waxee sharia la mooy xataayatu subut xataayatu jilaal maanaam texte coranique wala texte prophétique boo xam ne xataayatu subut la wér na péng ne yàllaa ko wax wala yonent bi ko kenn wutewu si am tamit dina wax xataayatu jilaal texte bi amul ay déggin amul interprète nii la nii la loolu mooy masala sharia kooku nag kenn du si toog di si werantee te waxtaan xam nga doo dugg doo dégg mukk ñuy toog di waxtaan naan dañoo war a waxtaan ndax ko subaa dañ ko war a julli war a julli wala ndax dana war a bàyyi ba añ ba pare wala ndax nangam ndax kooku masala charia la xaqiatu subut xaqiatu jëlaal am nañu wax masala fiqhiya masala fiqhiya dafay tegu ci ñeent ñetti yi yenn saa yi dana nekk xaqiatu subut danniyatu jëlaal maanaam texte bi wér na te ni lii alquran la yàllaa ko wax waaye nag ci biir texte bi déggin yi dafa wuute mooy wala ñuy wax xaqiatu subut lu mel ni ki ci jàpp famsahu bi ruusikum kooku xattaaniyatu subur la ñépp xam na ni jàpp da ngay masaa waaye nag dan niyatu dilaala la ndax bi ruusikum baagoogu ndax bopp bi lépp ngay raxas wala ndax génn waal gi ndax nàngam yenn saa yi texte bi dina ñëw foofu fiq lay dugg masala fiq la am nañu wax dan niyatu subur xattaaniyatu dilaala maanaam texte bi wax nañ ko waaye nag boroom xam-xam yépp d'accorduñ si ne wér na wala wérul waaye nag ni mu teg bi ñëwee ñépp xam na ne amul interprétation nii la misaal bi mooy xaddis yonent bi mu wax ni euh, giléem lu ci juróomi giléem kenn du si génn azaka kooku danniyatu subut la xataayatu dilaala maanaam boo de boo jàngee texte bi ñu ni la lu moyen cinq giléem doo si génn azaka kooku amul interprétation leer na nañ waaye nag dafa am problème moo tax yóbbu ko ci fiq ndax lan dan ñeetu subut su bi texte bi jaar ñii nee nañ xaddis bi wér nañ ñii ni wérul ñi ne nangam am loo xamante ni dafay nekk dan ñeetu subut dan ñeetu dilaal mooy xaddis bi ndax ci bee ko wax ñëpp d'accorduñ si bi ko yonent bi waxee dégg ñi ñëpp d'accorduñ si lu mel ni ki la salaata li jaaril masjid illa fil masjid maanaam ku dëkk ak jàkka sa julli amoo julli tànk demoo sa jàkka ji kon man nga ne Sénégal 99 pour cent kenn amul jullit te pourtant boo demee ci julli gi wér dem jàkk bokku ci maanaam ci euh, sixatu salaat kooku la ndax xaddis bi am na problème danniyatu dilaala ndax xaddis bi lan la laa salaatan kaamila la wala laa salaatan saxiixa la léegi nag problème bi ñuy waxtaan waxtaane nag muy planification cation bii ñu nekk nii dafay dugg ci masala fiqiya léegi nag moom mu xaajaloo ci ñaar dafa am lu ñuy wax ak taaqiim mu abbat maanaam limité naissance mooy amul droit jur kooku moom boroom xam-xam yépp dëppoo nañu dafa xaraam maanaam xaraam na ci ki nit ki mu dem ci médecin wala mu jëfandikoo loo xam ne day yàq njurukaayam bu dootul jur moo xam góor wala jigéen kooku araam na charan looloon boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci waaye nag boo ñëwee si li ñuy wax ak taaqim mu àqat ndax nit ki mën na ni xaaral ma dem ci médecin wala xaaral ma def samay pexey bopp yoo xam dina dagan ba toog juróomi at bañ a am doom wala ñeenti at wala fukki at foofu nag foofu nag la boroom xam-xam yu wuute léegi nag boroom xam-xam yi nag bu ñu wuutee ci masala fiq képp ku ciy wax danga nga koy yóbbu ci ñeenti école yi gën a siiw muy école Malik Shafi'i Hanbal Abu Hanifa léegi nag ma waxal leen ñeenti école yooyu kenn ku si nekk li nga wax ci planification mooy ndax man damaa war a toog ba am 5 ans doog a jur wala 6 ans wala ma bañ a jur sans bañ a yàq si njurukaay bu ma ko waxee nag ñu xool lu si ñëpp di kii dégg nga bi si njëkk mooy mashab mazhab abu xanifa abu xanifa moom ci palaanik bii ñuy waxtaane mooy toog ne bu ma neexee bañ a am doom moom ci mazhabam dagan na moom plani planification ci mazhab abu xanifa kooku dagan na boo demee ci téeréem boobu nga xam ni moom la ñu wax waaw kon waaw kay léegi kon xaaral comme comme noonu la léegi ñeenti ngir yi ñeenti ngir yi ñeenti ngir yi ci problème bii dañ koo xaaj ci ñett bi si njëkk mooy al ibaaxa am na ñoo xam dañ koo daganal dañ di dagan na planification dagan loolu nag loolu boo demee ci ngiru zeydiya ak ngiru imaam abu xanifa ñoom nee nañu dagan na ci palaanik sans benn charte boo ñëwee ci ngiiru chafia yi moom nee na dagan na waaye nag foog mu am charte mooy foog médecin bi nag amaat doom dina la gaañ wala nàngam wala nàngam boo demee ci ngiiru imaam euh, imaam euh, malik muy mazhab bi ñu nekk moom ñaara fa nekk at tahrim wal karaha tahrimiya maanaam moom imaam Malik dafa am si ñii giiru imaam yoo xam ne dañ koo araamal araam goo xam ne araamu carrément la boo ko defee am bàkkaar am nag ci biir njiir gi ñoo xam ne ñoom karaaha tahrim yee lañ ko def maanaam dañ koo araamal araamal goo xam ne du la jox bàkkaar mais dañ koo sib kon nag fa tabaarakallah salaamaaleykum wa rahmatulah Sénégal ban ngir la Sénégal ban ngir la waaw <laughs> Sénégal ban ngir la Sénégal ban ngir la senegal ban ngir la waaw suñu sëriñ nee na Sénégal ngir la. déet suñu sëriñ. <laughs> ah yaa ngi jàng yaa ma jàngal de. waaw suñu sëriñ bi. waaw suñu sëriñ nee na Sénégal ban ngir la. ah Seydi. ngiru Sénégal nag suñu ngir mooy ngiru Imam Malik waaw lii nag laa laa indi woon man nag. mazhab Malik waaw suñu mazhab mazhab Malik la. waaw man nag lii laa indi woon ci baxsu man ah, daanaka aw ma lu may dagana wala lu may araamal lii rek laa ci wax te it nag ah, sëriñ nee na a lañ teel a tàmbali waaw man nag sama point de vue lenn la sama point de vue lenn la mooy point de vue Tiwaawan suñu nee araam dama ànd ñoom suñu nee dagan dama ànd ñoom waaye nag lii laa indi ci wàllu xam-xam asalaamaaleykum wa rahmatullah ak ci kàddu yi leeral nañu wàll waaye wuute nañu ci li nga wax ne ak tax téye al muhabbat al muhabbat foofu la wuute am waaye sikk amul ñu ne ak tax téye al muhabbat arab loolu itam leeral nañu ko wax nga ñuy tam ni nga xam ni mbooleem mazhab bi te mooy mbooleem pensée yi nga xam ni ci la ñuy tënk ci wàllu fiq wax nañu ni ñii daganal nañu ñii araamal nañu